waaw ma ne man Agisa mi dama dama trompé dama trompé waaw ndax ba ba métier maa nekkoon ginnaawam di ko jàppale mu ñëw nekk sama avocat nekk avocat am waaw di ko dimbale waaw man tëj sama kër waaw lekk sama ginaar waaw tëj sama kaas loolu lépp su ma doon su boobu ñu ma waaw nekk si ginnaawam waaw tefus jot mu ñëw naan ah day gërëmaate keneen da gërëwuma Agisa mi baal la waaw man li Agisa mooy. waaw nafara boosin waaw nafara boosin waaw doonu jaay waa naan day sinap ak yooyu di sinap affaire naan dama ëmb waaw ko ëmb dina sinap waaw waaw nafara boosin su ko booy sango jàppee waaw dina waaw ko ëmb di waaw nafara jaay waa naan day sinap yooyu di affaire nan dama ëmb waaw ko ëmb dina si am waaw waaw na na na fara wasin su ko booy sànq jàppee waaw